final Toubacouta Thiam Sewal ndeysaan Desa si loolu am mbalak borom États-Unis laa montagne du Texas Desa di bëgg doon jum borom Fimela ndeysaan di bëgg waa ñoom foppalelu waa ñoom 100 pour Ngom borom ñoom Bato dem na Amad Ba Amad Diouf le policier borom Kër Mama Lamine Moussa Mbodj bëgg le policier borom Barka Amad Salibou Doudou Sané bëgg amateur yi Ndiaye Soudor Mamadou Ndiaye Silbert Silbert Diouf borom moyen borom Amérique di bëgg la Souk Faye le futur maire de la commune de Tafaguine la Souk Faye wal Amérique ndeysaan waa moyen nam teeno i mbugo xa cosaan si we di bëgg képp kuy bëgg Ndindy Fall TV képp kuy bëgg Ndindy Fall rek maa ngi lay bëggee. ale sukkangi na jot li am im bu ko xaaj cosaan si wo